jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ñu nuyu leen ci gën gi nuyu xibaar yi ñu door ko ak li nga xam ne ah, moom la gouvernement bu Sénégal doon waxtaanee ni ki tey jëlee ci suba mu jëm ci lu soxal wàññik ah, dund gi fii ci réew bu ah, Sénégal xam ngeen ne lu ni mel daañ ca dem ndax itam dogal wi daal nay wàcc lu ci mel ni ceeb bi diwlin bi ak itam li nga xam ne moom moo di suukar si mburu mi lu ci nekk itam jël nañ ci aw dogal daal di ci téq li nga xam ne moom moo di as lëf daje wu ni mel suñu ay ndaw teewaloon nañu fa télévision Futur Média Habib Faye reportage. gannaaw ay waxtaan yu yàgg ak ña sekk secteuruk mburu meeg suukar beeg diwlin gi ak yeneen gouvernement bu Sénégal fas yéene sóob loxoom ci lii. suukar si wàññi nañ ci fukki dërëm ñu fex rek ba mu bañ a weesooti téeméer ak ñaar fukk bu dee ceeb bi wàññi nañ ci dërëm. ñu wax ne waratuñ koo jaayee lu weesu juróom-ñetti fukk ak fukki dërëm bu dee mbiru dëwlin gi bi nekk ci bidon yi wel euh, ñaar fukki nañ ci ñaar fukk ñaar fukk ñaari fukk mburu mi wàññi nañ ci ñetti dërëm waaye wàññi bi mooy li ñuy mu doon ay ndogal yoo xamante nit jël nañ ko askan wi yàgg xaar li waaye ngir loolee antu faaw rek ak saytu ak ki xam njëg yi bu ñu sukkandikoo ci secretaire général gouvernement bi. sunu yéene mooy fexe ba bu ñuy comparer ñu gis ne Sénégal réewu Afrique yi ñoo ci gën a tuutile ay njëg te loolu mën na ne ndax jàpp nañ ne njëg gi boo ko doon def ay pàcc pàcc am na ci pàcc yoo xam ne ni luñ ca ñambaas la waaye wu caa ne li tax engrais bi wàññeeku danoo gisoon luñ ca njàmbaar soon mun nañuy wax ne sax mbootaay dañ koo def loo xam ne ni ba nu ñëwee ñaar euh, bu dee 1000 francs bu ne rek am nañ te 200 francs d'économie te danañ ko fexe def ci lépp. moom mii di woo asanuk Sénégal ñu gën a bàyyi xel ci njëg ya nga xamante ne dañ ko homologué waaye tamit fas ne nañ fay sanc ay magasin témoin ci biir réew mi képp loolee daa gën a tax xëyuk ndaw yi gën a ñoŋ. contrôle dana gën a nekk ci terrain bi waaye nag dañoo bëggoon askan wi population yi xale yi nekk ci kart yi association yi ñu jàppale ci nguur gi ci fexe njëg yi ñu xam ne ni dañ koy joxe leeral ko njëg yooyu mu nekk yi nga xam ne moom la ñuy appliqué ndax nee na ñu ne bari na bu mu jëlee risque kawu suukar bi prix ban waxoon ne la war a nit prix boobu kenn appliqué wu ko dañ ne woon rek fanweer bu dee Ndakaaru waaye léegi nag ngir ñu mën a joxe li ñu duppee déclaration d'importation ci li ñel wàllum dund gi faw rek li de am njeexital ci production bi ak it ci njaay mi rawatina it la ñuy dundee fii ci miim réew. gouvernement bi ne sóob na loxoom cib sance goo xam ne lu ko tax a jóg moo di wàññi dundu askan wi. Abi fay dogal boobee gouvernement bu Sénégal jël diwaan bu Kër Massar itam ku ci nekk daal di ñu ci yéey yàbbi askan wi itam ku ci nekk ak gis-gis bi nga xam ne nag moom nga ca am bu ñuy jàppee ne la ñu wàññi dafa tuut ñeneen ñi des itam di rafetlu bu baax a baax li nga xam ne moom moo di euh, jéego yi dañuy teewlu seen i ay kàddu ci micro Aminata Balde. ñu ngi koy rafetlu bu baax te kontaan nañ si bu baax a baax te lii lañ doon xaar si ñoom ñu wàññi prix bu baax baax a baax leen daal la bi. mu renforcer ko mooy mu yokk sécurité bi su bitig yi toujours surtout bitig yi nag parce que bitig yi ñoom duñu wàññi état mun na joxe euh, ne wàññi nañ mais bitig duñu wàññi waaw. wàññi bi de waroon na gën a am solo loolu waroon nañu gën a wàññi parce que wàññi boo xam ne ay ñitu dërëm ak yooyu loolu amul sens wàññi woon bu nekk sax ñu xàcc 2000 ñu ne wàññi nañ ci 2000 sax au moins mu tane mu dellu si 15000 bu mu nekkoon sax saako ceeb bi. moo tane woon parce que 20 000 na lool. muro bi waaw 150 bi ah mu yem si foofu su koy booy dem jënd ñu jëndee 150 booy dem ci pour ba 125 nga koy jëndee moo tane mais ay ay ñaar dërëm loolu dafay am weccet bi day day nekk problème sax. nee naa la man jàpp ma ne woon sax si moment bi wàññi mën naa am mais comme am na vu que ne dañuy sant yàlla parce que mu tuuti te yàgg moo gën mu bari da yàggul ndax gis nañ ne ñi fi jaaroon ñëpp. dañuy wàññi mais bu ñuy dem daanaka day mel ni wàññoo dañuy wàññi tey suba ñu yokk wàññi tey suba ñu yokk. ñu ngi koy rafetlu parce que citoyen yi loolu la ñuy xaar si ñoom boobu ak léegi ñoo leen di déglu bon bu fekkente ne bi yàlla dogal nañ lu mel noonu am na ñu ngi koy lu baax di ñaan yàlla rek bon ñu encadré ko nag xam nga parce que prix moo amut il est ñu fixé affaire yi kenn ku nekk citoyen bu nekk xam ne lii lii lay jar foo dem nga xam ne lii lii lay jar ba loolu waroon nañ cee wax location bi grand dafa cher ñun loyer la ñuy fay dëkkuñu Dakar waaw am na njëriñ dans la mesure où ñu teg ko ci yoon ñi nga xam ne ñoom ñoo wàññi ñu nangul leen ko commerçant yi nga xam ne ñoom ñooy jaay ñoom it ñu accepté nangu wàññi bi parce que nguur mun a joxe kàddoom ba pare des citoyens wala un citoyen lambda bu yor bitigam di jaay ñëw bëgg a bañ piri il faut que l'État fasse revenir la contrôle économique suñ bëggee wàññi bu ñu bëggee wàññi prix prix ñuy wàññi di impacté ci ci ci ci ci ci ci ci doomu aadama yi nga xam ne ñooy dund ci biir réew mi état bi dafay delloo soit contrôle économique Ousmane Baldé ak Aminata Ba ñoo tàttaan seen ay kàddu mbokk yi dañuy des euh, ci li nga xam ne moom moo di euh, tabaski bi xam ngeen ne euh, fan yi ci des bareetul ñu bëri ci askan wi itam daañu ko amal altine dem nañu fa nga xam ne nag moom moo di ca marché central ba nekk ca ngaay mexe foofee itam aji góorgóorlu yi ku ci nekk yaa ngi wax jafe yi nga xam ne nag moom ngay làmbool Cheikh Anta Diop ak Selatir reportage. ñi ngi fii ci ngay mexe ci marché centrale bi. askan wi de ñu ngi koy waajal bu baax feetu tabaski gi ku nekk ngi dugg ko génn ci bitig yi waaye ñu bëri nag di ñaawlu njëg yi nga xamante ni yokk nañ ko fii ci marché bi te nee nañu de xaalis amul ci dëkk bi. ah tabaski gi ñu ngi koy waajal waaye xaalis moom yaa ma gën a xam xaalis amul ah bagage moom yëpp a seer dara yombul daal yeeg ñoom seen nag ñoom yëpp a seer. miti na miti goo xamee ni doy na waar daal parce que dara doxagul. lépp taxaw fi ne nii. par nii moom day ala mais nag xam nga boo bëggee tamit loo xam ni sa sa poos antanu ko yow yaa indi sa bopp jafe-jafe waaw farat dëgg dëgg la julli baax na bon comme nee nañ du farata aussi xam nga boo yore ay gone aussi am na loo xam ni mënta tañaak waaw daf yenn rek daf li nga man rek waaw bañ koo ko quoi. Alioune Badara Diop moom gis ne lu jëm ci wàllu xar yi na askan wi ànd ak tey ku ci nekk la nekk sa poos te nga xam ko nga yem ca lool bañ a sonal sa bopp. ma yor yenn njëg nga xam ni njëg gi xar mi ëpp na loolu kooku tamit dafay doy waar boroom xar yi tamit ku ci gis lu jaadu nga jaay. ci biir marché bi ci salon de coiffure bi ñu dajeek soxna Ami Diop moom mii de nee na salon de mi ngi dox saa su nekk clients yi ñu ngi ñëw ngir waajal tabaski. waaj tabaski ñu ngi koy waajal clients yaa ngi ñëw macha allah commandes yi bari na ñu ngi defar musóor defar bi ay périk waaw macha allah clients daal ñu ngi ñëw naan ñu ngi ñëw moom macha allah fii moom wax dëgg yàlla moom. macha allah. ñu dem ba ca daral ga ca nduqura laataa ngay dugg ngaay mexe foofu de gis nañ ne xar yi bari nañu lool njëg li nag cher lool boo amulee ñaar fukki junneeg juróom jëm kaw ba trois cent mille ngir nga am xar mu baax lu jafe lay doon lu jafe lay doon lu nu mel arrangé wul ñi nga xam ne nag ñoom ñoo sant njaay ci réew mi ñu dem fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu mbuur foofee nag jàpp leen ne ñëwar wàllug euh, cet ga tey liet na mbay lay daal di koy euh, jiite dem nañ ca marché central ba fa rek daal di euh, caytu bu baax a baax lépp lu seexol ñam ya nekk cet nañu am déet ndax bëri na ci jàngoro yoo xamante ni lu nu mel moom moo koy indi ñu teewlu liet na mbay lay bu chef bu brigade départementale bu di urbaine euh, bu Mbour Ndeye Mati moo tàttaan ay kàddoom. jàngoro boo xam ne day jóge ci wàllu ñam yi waaw mu loo xam ne ni problème la actuellement ci àdduna bi parce que booy seet dañ la naan lu tolloog 600 millions juróom-benn téeméeri millions ci ay nit ay ay nit dinañ feebar ak bu nekk feebar yoo xam ne ci ñam bi lay jóge ci biir loolu ñu ne la 420 mille maanaam ñeenti téeméer ak ñaar fukki junni nit danañ ci gaañu ak bu nekk moo taxoon ñu créé bés bii nii pour. Euh, profité ci pour jàllale ay message waxaat nit ñi ñu gën a bàyyi xel ci ñam yi ñuy lekk li ko dale ci bërëb bañ koy bañ koy jëlee ñu production ba vraiment ci table à manger fañ koy lekkee ci étape yooyu yëpp ñu bàyyi xel ci ñam yi ba vraiment nit ñi mën koo lekk euh, te duñ am lenn benn lenn loo xam ne dinañ ci jëlee comme loraange sax mbuur nag boo gisee ñu ñu tànn ko dafa di bërëb bu am solo parce que mbuur carrefour la tey jii booy seet nit ñi macha allah bëri nañ fi grande surface yi ñu ngi fii ñëpp ñu ngi fi euh, leneen li topp mooy ni dañu nekk ci période boo xam ne ci tabaski lañ jëm day am solo aussi ñu ñaax nit ñi pour euh, ñu xam ne ñam yi ñuy jënd non seulement dañ ci war a bàyyi xel waaye conservation ñam yi aussi dañ ci dañ cee war a bàyyi xel leneen li ci topp it mooy ne nguur euh, statistique wane na at yi passé dugg nañ ci junni ak ñaar téeméeri barab yoo xam ne dañ fay jaay ay lekk mbaa ñu fay defar ay lekk te liñ ci constaté mooy bërëb boo ci dugg rek lu fa fekk ñaari infraction yoo xam ne dana dana dana am lien ak ak sécurité sanitaire des aliments boobu ñu kilifa jox nañu instruction pour ñu wër dara li pour mun a waxtaan ak nit euh, pour que vraiment ñu waxtaan ci condition d'hygiène yi mbokk yi diwaan bu mbuur la ñuy des ba tey ci tabaski bi jàpp leen nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di tailleur yi dañ cee am pàcc bu am solo ci la jamono bañ nañu ne dootuñu jël benn ñaw ndax itam la ñu yor da leen doy sëkk lu mu ci mënti doon ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di clients yi ba tey ñu ngi ñëw Ndeye Mati Dieng ñoo seqoon ak moom baat ak tontu ñu seetaan. genre machine yi li bari na fi ci biir atelier tailleur bi la nga xamante ne Grand Mbour daanaka ñëpp a ko xam ki fi nekk nag di Pape caam ne moom bari na ay commande yoo xamante ne daanaka léegi mu pare ko mu ñuy xamal nag ñaw yi nga xamante ne moo xew ci feetu tabaski bi la ren. ngi fi moom moom du fi jóge genre perlage baa ñu si def xale bi si def ay rob yu doy waar ay rob yu rafet genre da ngeen a fekk ñu paqueté loolu lañ gontoo paqueté lañ gontoo ak sama yaay mooy loolu gisoo am na benn robu jeeg ñaar bu ngeen tiim ne mu koy perle après xam naa du ñàkk mu tàllalee leen ko jënd ji nag t-shirt koy gënal ko mu dem jënd 4 mètres jeesneer ñëw mais xale góor yi genre ñu ngi sañ sa léegi. Omar Diouf beneen tailleur la boo xamante ne dafa ni dafa saturé ndax am na ci client yoo xamante ne dañuy toog ba mu xat ñuy door a ñëw. ñu toll moment boo xam ne dañuy baare mais boo baaree am na ni client yoo xam ne moom moo ñoom dañuy dëgër bopp duñu nangu dégg li ngay wax <laughs> waaw. te des fois dañ lay insister dañuy pour nga ñawal leen mais boo baaree ñoom it dañuy naan par force yaa may ñawal ma tàmm di ñawal. des fois na nga am si ay clients yu compliqué des fois nga am si clients yu cool des fois nga am si clients yoo xam ne ay borom mbaax la ñuy doon ñoo ñoo xam ne dañuy. compréhensif. ci ñoom ñi leen nag tailleur yi bari na ci ñoo xamante ne jamono yu mel nii pression yu metti la ñuy dund rawatina ak bu feetu tabaski jotee. seetlu naa ci vraiment euh, xëdër bu métti boo xamante ni il faut il faut l'expliquer Euh, parce que dañoo yéex a ñëw ba pare ñoom ñëpp ñu ñëwandoo kenn ku ne bëgg a jël yëfam ci saa si c'est tellement compliqué euh, ba foo ko wees foo ko natt rek wees na. appel bu ñuy lancer rek mooy ñuy teel a ñëw en plus euh, xam naa ne sa sera pas facile du du yomb. mais ñu ngi leen di woo ñuy teel a ñëw bu ñu ko mënee même bu ñu indul xaalis bu ko defee ñun dinañ mën a ñëw ñëw yi teel dem noppalu dem julle suñuy njaboot. mu des ay fan dong ngir ñu amal lii di tabaski fii ci Sénégal tailleur yi nag ku nekk di njëkkante ngir laata bés ba seeni ñaw daal di pare. mat yi njëkkante boobee nag lañuy bañ ci ñenn ci ñoo xamante ni itam daa ñu yëngu ci wàllu euh, dem ak dikk ndax bu ñu nee tabaski ñu bëri euh, daañu euh, bàyyee fa ñu ne ngir daal di koy amalee fa ñu fekk baax tax na itam responsable bu gaaru ceex bu bayaax nag moom Pape Modou Sarr di ñaax ñenn ci ñoo xamante ni ñu ngi yëngu ci wàll wi ñu tàttaan ay kàddoom. chauffeur yi nga xam ne ñoo nekk chauffeur en activité moo xam ñoo yore yi wala conducteur yëpp yi nga xam ne tabaski gi ñu jub nga xam ne daanaka mën nañoo wax ni ñu ngi ci. ñuy sàkku ci képp kuy dawal oto kuy dawal oto rek la ñu wax nga sàmmante ak code de la route. sàmmante nag code de ci point yiñ ci tàmm mooy ñëpp def ndànk te ñu moytu guddi gi di bañ a doubler bu dee transport en commun mu bañ a siir nombre oto bu am paan mu taxaw képp koo xamante ni bi tam ñu ngi ñaan tam bu ñu ñetti point yi bu buñ ko génnee ñu ñaan état yi tam ñu may ñun transport en commun yi onze heures cinq de matin ñu dindil ñu ko. lu jiitu ñaari fan tabaski après ak ñaari fan yi toppaat ci tabaski waaye su ñu ko mayee ba par li ñu may li ñu may ñun dañ ko xam ñu jëfandikoo ko ba bu ëllëgee buñ ko ñaanee ñu may ñu ko mooy transport en commun ak chauffeur ñu def ndànk lépp lépp ci ndànk lay doon ñu sàmmonte ak code de l'art code moom tënk na lépp mooy doo surnombre doo duble foo war la duble bu soo oto amee panne nga droité boo amul lumière nga defar ko bala de booy dem fu sori nga vérifier oto bi avant bala ngay départ lii daal mooy loo xam ne sàkku nañ ci paas yi ci wàllu paas yi itam ñu jàppandil nit ñi paas yi bañ leen a jekku rek jekkali bëgguñu ñu jekku rek jekkali leen bu bu sëlu yooyu bu giir dem ak neen fu paas waroon nekk ñeenti téeméer te booy ñëw doo dellu si nga dolli ci benn téeméer rek boo solee essence ñëwaat te bañ ko def ñaari paas mbaa ay aywa ñu jëm ci li nga xam ne itam dina mën a tax ñu gën a jëmmal jox dayoo ak itam ak yelleef ci yenn ci ay soxna yoo xamante ni euh, dañuy yëkk yëngu ci wàllu euh, domaine wu euh, sécurité maritime xam ngeen ne nag ndaje wu ni mel ñu ngi ko doon amal ni ci tey jii ci suba ci teewaayuk secrétaire général bu haute autorité chargé wu coordination sécurité maritime ak ki nga xam ne. moom moo di commandant euh, adjoint bu centre international euh, Kofi Annan lañ fa nas itam euh, daanaka bari na ndax bari na ci ay soxla yoo xamante ni dañ leen doon fàtte ci wàll wi ñu teewlu ki nga xam ne nag moom moo di air commandeur David Akron commandant adjoint boobee la ñu teewlu ay kàddoom ci micro Alhassane ak Amadou Ba. li tax ñu teew fi tey dafa am lu ñu seetlu. mooy li ñuy wax résolution 1235 bu kuréelu mbootaay xeet yi dañoo seetlu ne jigéen ñi boolewuñ leen ci fa ñuy diisoo ngir décider lu jëm ci wàllu sécurité loolu ñu seetlu moo tax suñu centre bi nga xamante ne dañoo xarañ ci wàllu gëstu xarañ ci wàllu lépp luy tax ñu jëmale suñu sécurité ak suñu nekkin ak dëkkuwaay bi ngir mu gën a jëm kanam moo tax ñu booloo tey ngir waxtaan ci loolu loolu ñu seetlu que ne jigéen ñi boolu leen trop ci xalaatin ci prise de décision yi moom la ñu bëgg balaa ñuy pare ndaje mi ñu am lu ñuy wax code de pratique loolu moo ñuy permettre dans le futur ñu mën a gën a gis jigéen ñi ci xalaatin bi maanaam bu ñuy xalaat ci lépp lu jëm ci wàllu sécurité ñu gën cee gis jigéen ñi loolu moo waral ndaje mi tey Euh, Air Commodore euh, David Akron looloo waral teewaayam tey fii nii. does not take women into consideration. aywa ñu waxtaanee ñenn ci ñoo xamante nii nag dañu yëngu ci wàllug euh, ressources humaines xam nga ni itam seen juróom fukki at yoo xamante nii euh, ñu ngi koy waajal bu baax a baax thème bu am solo boo xamante nii daal nañ koy jukki atum ren bëgg nañ itam euh, ñu daal di taxaw ci boobule liggéey waaye itam def kem kattan bari ñu bëri ci ndaw ñi amas xëy fii ci réew bu Sénégal ñu teewlu ki nga xam ne moom moo di secretaire général bu boobu lee association nekk itam président bu comité wu bu boobule xew-xew Mame Biram Diouf ak ki nga xam ne moom moo di Alioune Diagne ñoo tàttaan ay kàddoom. formation sociétale et technologique impact sur la fonction ressources humaines mooy société bi ni muy changé naka lay soppee ñun ressources humaines suñu liggéey loolu la ñu bëgg a saytu euh, ci colloque bi ñu bëgg a organiser au mois de décembre. xëyum ndaw yi nag loolu moom dafa mës a nekk suñu préoccupation parce que même ba ñuy fêter suñu quarantième anniversaire moo doon thème principalu euh, colloque bi. donc ci loolu nañ nekk ba léegi moo tax ñu ne comme dañuy fêter suñu anniversaire bëgg nañu mettre en place ay actions yi nga xam ne dinañ continuer di jàppale ndaw yi action bu ñu njëkk xalaat mooy def ay journée porte ouverte c'est-à-dire dañoo def partenariat ak euh, université Cheikh Hamidou Kane ex UVS ak programme Forsen li ñu décidé mooy une fois par mois dañuy dem ci benn région ba pare organiser fa benn journée porte ouverte nga xam ni ndaw yëpp dinañ mun a ñëw. bu ñu soxlawee information ñu jox leen ko suñu soxlawee formation ñu jëm leen jàppale ñu jëm leen orienté pour que ñu xam lan la ñu war a mën a def pour mën a am liggéey wala pour mën a créer seen liggéey bopp ay aywa ñu waxtaanee yenn ci magum diine yoo xamante ni nag ñu ngi fii ci réew bu Sénégal daanaka seen ak solo ci lu soxal wàllu élection fii ci réew bu Sénégal bareetul ndax itam ñu bëri ci ndaw ñi dañoo létt ay dégguma ci lenn ci li nga xam ne euh, moom moo di seen ay kàddu bokk na ci li ñu jukkee ci waxtaan wi nga xam ne euh, ñu ngi ko doon amal ni ki tey ji ci suba leneen ci loo xamante ni itam waxtaanee na ko bokk na ci lu soxal wàllug réseaux sociaux yi maanaam xarale yu yees yi ndaje wu ni mel Alioune Dissa Prera ak Mohamed Saw Dieng ñoo ndax kilifa diine yi ñoo ngi wéy di am influence ci milieu politique bi li wóor bu wóor mooy jeunes yi ñu si bari dañuy def différence diggante seen gëm-gëm ak seen engagement politique loolu bokk na ci li étude bi wane. ràññee gu mat sëkk ci seen taxawaay ci wàllu politique ak ci wàllu élection nga xam ni ñoo koy jël seen bopp ak seen taxawaay ci wàllu diine nga xam ni dañoo euh, jox bopp wala dañoo euh, def jox confiance ñi nga xam ni ñooy kilifa diine yi. loolu nekk loo xam ne lu dal xel la bien que am na ci ñu bëri dañ léegi ci wàllu ki ñuy votel ki ñuy tànn ci wàllu politique duñ ci déglooti kilifa diine bu mën doon muy ci jàngu bi muy ci tarixa yi mu ci yenn mouvement islamique yi am na ñu ni ñi ci ëpp ci Sénégal yi tey saxal nañu ni ko jàng euh, jàngat bi wane ni dañoo soxla lool taxawaay kilifa diine yi nga xam ni saa yu réew mi tolloo. ci ay xat-xat wala ci ay crise seen rôle en tant que médiateur dañ ko soxla bu baax a baax te rôle boobu warul nekk rôle boo xam day arrêté dañ ko gën a war a gën a dooleel ngir ñu continuer di jouer rôle boobu ci Sénégal ngir ñu am stabilité bi nga xam ne moo ñu ràññee ak yeneen réew yi ñuy wër. étude boo xam ne ñu ngi ko amal ci zone côtière yi ak ci région frontalière yi bokk na ci li ci gën a fës mooy doole bi nga xam ne réseaux sociaux yi am nañ ko jamono jii téeméeri jeunes ñoo jël juróom fukki ak ñett ci réseaux sociaux yi la ñuy faral di jëlee seen ay information politique ba tax na parti politique yi sax mënatu mënatuñu leen nax. réseaux sociaux yi dafa jël place bu am importance place boobu dem na ba. buur sax ñi nga xam ñooy parti politique tey ndaw ñi fi ñuy jëlee seen i idée politique école du parti mais ci réseaux sociaux yi fi ñuy jëlee seen xalaat ci wàllu choix électoraux li ci ëpp réseaux sociaux yi la loolu tamit nga xam ne moo laal parti politique yi euh, aussi laal na ci wàllu diine nga xam ni ndaw ñi aussi ci jàng seen diine dañuy xool lu bëri internet ci wàllu gëstu xam-xamu diine aussi dañuy xool li nga xam ne mooy les réseaux sociaux li ñu tuddee la démocratisation de l' au savoir religieux maanaam xam-xamu diine xam-xamu euh, li nga xam ne jëm na ci diine tey dafa nekk loo xam ne dañu fa démocratiser ba nga xam ni du ñenn rek ñoo ko yor waaye xale yi dañuy gëstu ci internet bi diggante ndigal yu tukkee ci kilifa diine yi ak enjeu yi nekk ci réseaux sociaux yi daanaka foofu la xeex bi toll te religieux yi nga xam ne jot nañ ko comprendre ñoom tàmbali nañoo dugg ci internet bi. Alioune Dissa Préra ñu waxtaanee leneen jàppale ne jëwriñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu tàggat yaram ni ki tey jile euh, mi ngi doon euh, jiite tëjuk euh, programme bi nga xam ne moom mooy tax ñi doon jéem mbëkk gaal gi te mujjut sotti ñu gën leen a boole ci li nga xam ne nag moom moo di askanu Sénégal ñoom itam ñu ngoy jëf lu nekk ànd ci itam ak ñenn ci ñoo xamante nii jot nañu leen a tàllal loxo madame Khady Diène Gaye lañ leen digtal ay kàddoom ci micro yi ay Kumba ak Ababacar Camara. te dafa am li nga xamante ne liggéey bu fi jotoon a am depuis 2018 te liggéey boobu noonu ñu ko doon def ak suñuy naataangoo lu mel ni république fédérale d'Allemagne liggéey boobu nag moo ne woon ne que ñu samp li nga xamante ne dina mën a jëriñ askan bi jëriñ ndaw ñi ndaw ñi nga xamante ne dañoo jéemoon tenté immigration dem dellu si wala ndaw ñi nga xamante ne dañoo tenté immigration ñu daal di leen delloo si ci ci seen ñàkk te àndul ak seen i coobare bopp ak ndaw ñi nga xamante ne itamit dañu dem mais ñoom ñoo tànn ñibbi si seen bopp. loolu nag centre bi nekk centre bi nga xamante ne ndaw ñi dañ leen fay former centre bi nekk lu am solo parce que centre bi. am na li nga xamante ne jot nañ ko fi exposé fii sànq ni gis nañ nekk ñu bëri si lañu sukkandiku ba mun a am benn métier ba tey jii ñoom ci seen wàllu boobu ay entrepreneur lañu ba ñu ngi employé yeneen ni ndaw ba ndaw ñooñu dañu xalaat a jël gaali pour daal di dem bitim réew. aywa ñu waxtaanee wàllu tàgget yaram ba tey lu jëm ci éliminatoire wu CAN 2024 mu soxal nag footballu li nga xam ne euh, moom moo di euh, tefes gi réew bu Sénégal champion d'Afrique en titre xam ngeen itam dina laale euh, kenn ci suñu ay dëkkandoo ci weeru juillet lay doon mu soxal Guinée bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne nag moom moo di sélectionneur bi moom Omar Ngalla Sylla la mu xam xamle moom moo di lu ni mel derby la ba tax na faaw rek ñu daal di koy waajal ñu teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Sadibou Diarra même bu fekkee ne Guinée mu ngi door a ñëw xam nañ ne seen i voisins lañ à chaque fois bu ñuy jouer seen match ak voisins yi du yomb. ensuite aussi euh, équipe la boo xamul donc da ngay préparer en conséquence pour dara bañ la bett en tout cas dina dinañ waajal mu ngi doon entraîner fii si plage yu jàmmalaay bi. donc xale yi dañ doon dem ak ñoom mais après tabaski ji bëgg nañ leen dugal ma fermé pour waajal leen bu baax pour préparer ñaari jogante yooyu d'ailleurs sax benn bi mu ngi am. si semaine du 19 au 21 juillet beneen bi retour yi nekk di 28 euh, au 31 juillet donc de toute façon ñun euh, dinañ si def seen kéemtalaay kattan waajal xale yi ñaan yàlla mu may ñu qualification incha allah. aywa mbokk yi ñu waxtaanee leneen xibaar wi li nga xam ne nag euh, moom la ñu dàpp euh, léegi jàppale ne nag euh, benn ndaw loo xamante ni mi ngi wuyoo ci turu Ndeye Anta Ndiaye moom rek la ñu daal di faat ñu ngi ko fekk fa nga xam ne nag moom moo di ca makkaanam daal di koy sox ak ngannaay moom moomee nag mi ngi amoon ci lu toll ci fukki at ak juróom-benn doon def li nga xam ne nag moom moo di kalaasu xam ngeen ne jee ju ni mel ma nga xewee ci bët gànnaar bu réew bu suñu yeneen jotaay yu xibaar ak suñu naataango la nga xam ne moom moo fa teewal télévision Futur Média Ousseynou Diop lay wuyoo fi la ñuy jaar mbokk yi daal di yëkkati jotaay yi dig daje léegi léegi ak rédaction bu télévision Futur Média Sara Cissé dina fi teew ci xibaar yi ci kàllaamay euh, français man itam ma jox leen daje ci yeneen i euh, jotaay fii ci TFM lu may loolee de seen di wéy ak suñu ay programme jàngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm